والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الردوان والتمكين أيها السادة والسيدات أيها الإخوة والأخوات نحييكم بأحسن التحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen di niyaar di leen ziar di leen nuyu ci gën gaa rafetum nuyoo di leen jéggalu bu baax ak di leen nuyu tamit ci seen bu màgg bii nga xamante ni mooy Touba Mbella TV ñu war a ànd ak yéen nag ci seen émission bu màgg bii di alxikma mooy la sagesse di waxtaanee yéen ci jamono boo xamante ni jamono bu laaj waxtaan la waaye di indi ay leeral ci jamono boo xamante ni jamono boo laaj ay leeral la ndax jamono su demee ba lëndëm xel yi dañuy daal di gëtëng te su gëtëng xasee am rek doomu aadama yi dañuy taxaw kenn ku ne di posé wu ay questions yu baree bare baree bari question yooyu da ciy bokk fan lañu jëm lan lañu war a def ak lan lañu war a wax moo tax loolu nag fenn rek nga koy mën a amee mooy ci Touba Mbella TV soo dikkee nan la war a wax lan nga war a def lan nga war a wax ak fan nga jëm olof day faral di wax naan nit ki su demee ba xamut fu mu jóge day dellu fa mu jóge woon soo demee ba xamoo foo jëm da ngay dellu fi nga jóge woon chariatul islaam dañoo jàngal pour doomu aadama yi nekk ay nit ñoo xamante ni dañoo war a nekk ay exemplaire seen àdduna yàlla dafa tabax doomu aadama def ko muy représentant représentant ci kaw suuf loolu mu ko def nag pour mu nekk xalifaam ci kaw suuf nit daa war a dëkki suuf waaye wurta jël suus di ko yàq dëkki suus dëkkoo ko waaye wuruñoo yàq wuruñoo tasaaru moo tax nag tey waxtaan bi dañ koy tënk ci ñaar yoo xamante ni jamono da koo laaj muy naan rëy ak li nga xamante ni moom lan naan nit ki yëg-yëg yëg sa bopp ak rëy ñaari baat la yu nuroo te bokkuñu lan mooy rëy rëy kenn jógoo ko ci àdduna ku dut borom bi tabaraka wa taala yàlla rek moo jagoo rëy keneen ku jagoo rëy da ngay sonal sa bopp sonal saw askan sunu xoolee liy xew ci réew mi ci wàllum am doorante wàllum tasaaroo ku jég politique gi mujjee yàgg mel ni luy xëccoo ñi jiite mel ni saa yu nu bàyyee day am lu manqué ci ñoom day mel ni rëy commencé naa am seen biir te bala ñoo xam ni nag jëf day fekk wax wala réccu day fekk jëf wees mbir yii yëpp jàll ba kenn ku ne toogaat sa taabul ak sa njaboot di xool su réew mi tàkkee fan la ñu jëm doomu aadama wurta rëy ci àddunaam yow mi jiite yow yaay déglu ñi nga jiite saa yoo xamante ni dem nga ba ak réeru am seen diggante yow mi jiite yow yaa war a xam ñi jiite ñi nga jiite lan la bëgg ak lan la ñu bañ waaye bul di pasar pasare ak di jaay sàmba alaar ci lépp loo xamante ni da ko bokk ak say nawle sunu delloo ginnaaw tuuti ci benn xalifa bu màgg bu tedd ñu doon ko wax Omar ibnu Abdul Aziz xam ni moom lañ doon dàkkantele juróomeelu xalifa bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi defee mu yor xilaafatul islaam dafa ameen doxin wu rafet wu mu daan doxe waaye avant mu koy yor doxin wam daan doxe ak bi mu ko yoree dañoo bokkut avant mu yor xilaafatul islaam Omar nee na dafa amoon yaram ba tolloon nu ko neex ceinture yi nga xamante ni moom la arab yi daan takk seen ndigg yi moom su ko masaan a jël di ko takk ci ndiggam daanul jot dañ koy ñaarte ndax yaram mu amoon nee na taxaru woon lool ba suy génn di ñëw xeetu parfom moo lay njëkk a waa Omar ibnu ibnu Abdul Aziz mi ngi ñëw dëkk bi yépp naw ko bëgg ko bi xilaafatul Maamun daanu ba mu war yor xilaafa gi. dafa nag ki nga xamante ni mooy soxnaam ak ay njabootam da leen a woo ñu toog noonu la président war a def bi mu leen woowee ñu toog mu ne leen lépp loo xamante ni xaalis la bu ma dondoo woon ci baytul maal baytul maal sariya da ko amoon bu njëkk lislaam dañ ko amoon mooy kër goo xamante ni dañ faan denc alal li jullit ñi mu ne lépp loo xam dama ko fa dondoo woon dama ko fay delloowaat ndax alal li jullit ñi la daane soxna si bu dee bëgg nga ànd ak man ci nii bismillah budé bogo bëggu and ak man nak ci ni dama lay gañ man na la bay nga war say mbokk ko koy gor soxna ci daal di ko d'accord na pour and ak yow ci condition yii te mooy xalifab jullit ni ginaaw lolu nee na daan nañ ci réunion sun di réunion bi réunion bi di métti nit ñi di réunion sondel yi mi taal wala lampe pétrole yi mi taal ci alalu jullit ni la da ko dan taal ñu réunion sunu réunion ba réunion bi jeex sun commencé wax yeneen wax day fay lampe yi ñu ko Omar li nak mu ne bi ni wax ci waxi julli ñi lañ doon wax ci li jëmale julli ñi kanam lañ doon wax waye instant bi nak sunu mbirum bop lañu nekk kon nanu fay li nga xamanteni julli ñi ñoko mom moom te ñun ñoo ko ak ñom nan ko fay ndax seen par nekkutu ci ana ab khalifa wurta defé ni koku di def nonu la ak njiit wara def waye nga jëlat beneen exemple ku melni ne ibn al-khattab bi Aboubacrine Siddiq fatou ñu ne Omar ibnu Xataab moo ñu doy ci xilaafa gi Omar dafa yéeg ca kaw minbar ba war a xutba dana yéen jullit ñi su ma jubalee na ngeen ma topp su ngeen demee ba gis ci man génnug dëngte na ngeen ma wow wax ma ko far yàlla benn arabi yee daal di jug benn naar ci ñoom jug ni ko Omar bis boo demee bay dëngal sunu jaasi jiilal lay jubbantee mu ne alhamdulilahi ba ma amee am mbooloo mu déterminé pour war maa jubbanti saa yu ma dëngee ngir saa yoo demee ba nekkoo ci yoon saw askan suñ la dee ko wax danga leen di déglu cim xel te bañ leen a dégloo xol ndax koo dégloo xol doo ko dégg ndax dangay tàpp ni moom yaa ko ëpp pouvoir jamono ci doxin woowu muy dox nag nit yi diine yi dañ ciy jouer benn propagande bu am solo boo xamante ni dañ leen a war di déglu ci jamono ngir jamono ji fi mu toll moo tax nit ki bul rëy si sa àdduna borom bi tabaraka wa wax na ko ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man kaana fi qalbika misqaala qabbatin min alkibr lam tadxul aljanna mu ne képp koo xamante ni am na benn fepp benn tuuti kallaxtaan lu tolloo fépp suuf ci rëy ci sa biir xol na la leer ni doo dugg aljana te jamono da cee toll moo tax ci Ahmada Tijaani da ko waxoon nam ko waxee woon dane ab ab état su àggee ci féeterlu ba doon ay dictature commencé di imposer boppam ci aw askanam mu ne mbooloo ma déterminé te am détermination seen bopp ñoom rek ñoo war a bugg pour jàmmaarloo ak moom waaye jàmmaarloo gi ci nan bu nu lor seen yeneeni moroom yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci askan wi waaye bu nu sonal seen yeneeni moroom yi nga xamante ni ñoom ñooy doxin doxin woo xamante ni doxinu patriotisme la am réew bëgg da caa am solo kon loolu mooy rëy mooy nit ki waroo rëy diglu aw askan wi la jiital loolu dañ koy adressé ki nga xamante ni mooy sunu njiitum réew ban lay fal ca 2012 suñuy carte la woon nga war ñu wax ñu lu dal sunum xel ñu fal la askan wi sunu doo dooxee tuuti ba gisatun ni loolu dala dun seenum xel am nan sañ-sañu taxaw laajaat la ko ndax yow la ndax borom bi moo wax ci làmmiñu yonent bi ni ko kullukum raayi wa kullukum mas'ulun an yi ku ne ab sàmm nga te sàmm bu ne ëllëg dinañ la laaj nan nga sàmmee woon kon président na nga fexe ba yàlla soo jàkkaaroog moom ëllëg ba mu lay laaj ñi nga sàmmee woon doo sëgg te doo jaaxle te doo gersu ñi la wër ñépp nag yaa ngi ñoom du ngeen bokki bàmmeel bàmmeel kenn rek moo koy bokk kenn ku nekk sa bos la ñi la wër ñépp tamit du ngeen bokkandoo fu ngeen wéet yàlla di leen laaj kenn ku ne la yàlla di wéet ak yow te yàlla nee na kenn munta indi ci man dara luy jariñe illaa man ata bi xalbin salim ku indiwut xol bu sell mag yow amul dara looy indi leen loo xam ne man la laa jariñ ci ëllëg yowmal xiyam xol bu sell nag bokk na ca nga bañ a rëy waaye ngay déglu saw askan wi nga xamante ni ñoom ñoo la jox li nga doon suñu demee balay wooyee institution war xam ne ki la ko def du kenn nit du ñaari nit waaye aw askan la ko def kon ngàllawaay bul topp nasaraan si nga xamante ni ñoo ñu dugal ci guuta bul déglu ñi nga xamante ni suñu sañoon suñum réew di tàkk comme na siri di tàkki ak Yaman ñoo ñu yàq ak defi toj-toj ak def lu bon rek moo leen tax a jóg te réew mi nag yàlla pare na ca li borom bi waxoon ci alquran ni jaffatil aqlaamu ni xalima yi yëkkati naa ko ci lépp lu may def pare na réew mu jub rek lañ bëgg te mu stable te ñëpp dox ci jàmm dox ci ak mbokk beneen ga mooy yëg sa bopp iblis laanahu llaahu mi nga xamante ni yàlla da ko rëbb dane woon doomu aadama dinaa ko yàqal ci ñett te bopp bi nga koy wax mi ngi jàkkaaroog borom bi ñu ne ko ñett yi yan la mu ne benn bi dama koy yàqale ci pouvoir ci ak ak sulta mooy pouvoir nit ki dafa bëgg pouvoir doomu aadama daa bëgg pouvoir mënul tax mu ne nit soo ko joxoon génn kër ni ko yaa ko jiite sax dina ci wane loo xamante ni da ngay dem ba mu jàgg da nga koy xeeb ndax day commencé naan kër gi maa ko jiite bala fekkee na dugg nangam ak nangam lu toll ni am réew suñ la ko joxee soo amul sax tuuti da ngay yëg sa bopp ndax lépp sa loxo sa la nekk soo bëggee lekk da ngay dóor benn coup téléphonique ñu indi la lekk naan noonu. soo bëggee tukki doo xaar doo dem ci aéroport bi di ran avion moo lay jël si nga def directement ñibbi nga defaat directement doo sonn dangay dem ba mujj yàgg dangay nurook buur ñi la tegoon dangay dem ba doo leen xàmmeeti ñi la faloon daaw dangay dem ba ren da leen di fàtte sa nit yi démb nga ginnaawal leen sa nit yi tey ñoo lay jay ngir jàpp ni yow mii li nga am. du yalla waye mérite la te nit amul mérite lu ko yalla jox la ak nguur fay jeex kon nit ki da nga a taxaw en fond du cœur nga gëm ni ñi la joxone li tay bis man na ñew ñu wàcce wat la kon def ta lo xamanteni ëlëk so leen ko laajaatee ñu man la ko jox te benn problème du am bi Iblis juggé ci pouvoir dan dama leen yakal ci li nga xamanteni moy jigen ndax inna kayda shaytan kana daif pexem iblis lu lu lu woyof la disut waaye ci kan lay sukkandiku ci jigen ndax yàlla mo ne inna kayda kunna azim ñom jigen ñi seeni pexe lu yaatu la mo tang nga gis ben problème posé wu ci kanamu sénégalais ba tax mbir mu bare bare bare bare am si mu dem ba Sénégal jigen amatu fi voleur jigen mujj yag doon ab objet mujj yàgg doon am marchandise mun a teg ci diirum marché di ko jaay jigéen dem ba nangoo yëkkati kàddam di wax waxtu vulgaire joo xamante ni soo ko diggee sax saañ say nopp lu ko indi lépp loo xamante ni mooy nit ki dem na ba yëg boppam ni lépp mën na ko ndax lépp a ngi ci loxoom te xamuñu ne yàlla pare na looy def ci sa àdduna soo sóoraalewul borom bi tabaaraka wa taala keneen koo ci sóoraale danga koy yàq bu njëkkoon Sénégal daanoo fi dégg wax joo xamante ni ju bon la soo ko masaan dégg tey bala nga ko déggat di nga demati ay at yu bare baree bari wala ay weer yu baree bari waaye bis bu set looy dégg saaga ndey wax ju bon rey na diw def na diw nàngam am réew na sa tollee njiitu réew yi ñoo war a taxaw waxtaan ci seen biir ndax yàlla da ko wax atiu llaaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum topp leen yàlla topp yónente ak ñi nga xamante nii ñoom ngeen woolu mu ne nag fa intanaasahu fii amrin su ngeen demee ba commencé di xuloo ci dara ak digg daag am ca fa rudduhu ila allahi wa rasul delloo waat leen ko ci yàlla kub yónenteem kon mbir mi li ko war a régler dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñu delluwaat rujuu ila al asliya delluwaat ci ginnaaw lan lañu fi mag ñi bàyyiroon lan la mag ñi doon xeex lan la mag ñu bàyyiloon ci ay valeur yoo xamante ni daan nañ ko incarné pour ndaw ñi mën cee jàpp tey yàlla bu mel ni réew yi nga xamante ni tàkk na ci loo xamante ni lu ñàkk fu laakataal te nag nanu def attention ndax olof day faral di lii ci ñag bala jëm lii su dëkkut réew mi dana mas a li dal Guinée dal Mali nanu ñaan yàlla mu bañ ñoo dal ci kaw nag ñi nga xamante ni ñooy njiiti réew mi mën a ubbi seen nopp yi yàlla jox leen ñu déglu seenu askan si sinon rek problème dina am problème yu baree baree baree baree bare yoo xamante ni kenn du comprendre yi problème fan la jóge loolu nag li koy waral mooy nit ki dafay àgg ci dara ju féeteerlu dem ba rëy jàpp ni lépp mën na koo le ci propre am xelum boppam mi nga xamante ni moom lay sukkandiku te xelu doomu aadama dafa manqué ndax nit su manqué wutoon yàlla du defaraat yeneen i nit ni la dellu wut kii def ko nàngam dellu wut kii def ko nàngam waaye nag ginnaaw ba nga leen wutee ba pare nag koo ci def loo nàngam na nga ko bàyyi mu dexee xelum boppam su demee ba nar a réer nga ne ko kaay li ma lay def loo ak li ngay def bokkatun li ma lay def loo ak li ngay def bokkatun foofu la ñu di xaar foofu la mag ñi di xaar mag ñi dañoo xeexoon ngir réew mi nekk ci ak jàmm an Omar Fouti lu ne daj na ko ci jihaad ci silaamam ba nu gaw ko ci amdallah mu jëfandikoo la mu jëfandikoo disparaître almaami Abdou Kader Kan lu ne daj na ko ba ba mi daanu jéeri joor ndee la ñooñu ñëpp dañoo xeex waaye xoolal ñeneen ñoo xamante ni xeex na aw ci beneen voie bu bokk da ci ay tour deret ak ci xeex-xeex boo xamante ni xeex bu pacifique lay doon muy ku mel ni Cheikh Alhaaji Malick mu ne sama xeex bi yépp dama ko jeexal ci jàngale ak yar ba am ay nit ñoo xamante ni ay modèle la ñu doon ëllëg tabax ay muxaddam yoo xamante ni foo toog ci réew mi wasifa baatub laa ilaha illa laa ma ngay jóg Cheikh Ahmadu Bamba xaadimu rasul bañ ak bëggoon der bu ñuul mën a tekki dara ci àdduna moo taxoon ñu génne ko fii nii yóbbu ko mu dem ci tukkeem bu sori ba moo tax ba ko gaay yi daal koy attaqué ni ko dégg na da ngay jihaat da ngay programme ab armée dana leen waw dama jihad inni ujahidu bil ulumi wa tuqa abdan adiman lan mujahidu jihad gi may jihad ragal yalla ak xam-xam la koy defé waaye dama nek jaamub yalla nek ab jihad katam waye luñ ci man di def rek ak ciona yun ko meuna tek yep rek andon ak boromam ma taxone motax borom bi indiwaat ko mu amaan lu reuy ci digg mi nga xamanteni ñep dañoo seenu dundu ci liggéeyal yàlla jeexal seen dund ngir réew mi mën a am jàmm ci ñooñu leen war a delluwaat sama xel ngalawaay njiitu réew bul gouverner mukk ci téere Machiavel bi nga xamante ni bépp gouverneur ci àdduna mi ngi koy liir te musibay neeru lay dong la Machiavel dafa wax ci téereem bi ni doomu aadama du échec ñu ne lu tax du échec mu ne nit soo bëggoon pouvoir wala nga bëgg dara dem ba nit ñi bëgg la ko xañ wutal ay caterpillar nga awale ko seen bop yi ta jall ngir ag ci la nga war ag ni doomu aadama saa yu essayé rek yaa fusuk bopam la kon wax dëgg yalla bu nu jëfëndiko téereb juif bobu nga xamanteni ni addunaam sépp da ko jéxal ci tour deret ak japp ni nit ki daa war di ay nit ba mu àgg ci li nga xamanteni ci la war ag ndax so tëddee di nga xalaat wala di nga nelaw ba yandor ndax ci lu bon li nga def yépp rek sa yo tëddee mi ngi répété wu waat ci yow té nit nak da wara nité nite doomu adama wuro ag ci darajatu dof bay ray saw askan té ku ca dé do ko sax jox ben yoon mbir mo xamanteni ag na ca mom kon doomu adama yi nanu xamni ñaar yi moy ñaar yi mëna tuj aduna muy reuy ak yek sa bop nanu bàyyi rëy te bàyyi yëg sunu bopp askan wi nanu nekkaat ay nit te xam ni ñii nga xamante ne ay nit yi àdduna lan jëruñu topp wax ju bon ak yàq ak kàcc suba ak ngoon moo leen tax a toog ñi jiite réew mi jàpp na ni seen doole ak seen doole yi poos war noo mën a def sénégalais yi ay xar ak i ci li ñuy daaneele rek muy benn boroom borom ma dafa waxoon la am solo dana Sénégal bëy moo fi gën a yo boo fi gën a seer doomu aadama ñu ne ko lu tax mu ne ko soo yoroon 5000 dem daral doo am bëy waaye soo yoroon 5000 5000 5000 yu bari jox ko ay nit 24 heures ñu lay tàcc yaa leen moom loo leen wax ñu def ko te loolu gis nañ ko fi bu yàggul wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yal na yàlla def ci réew mi jàmm defal ñu jàmm te defal ñu tawxiif tawfiix lii nag ñoo ngi koy jaaree ñëpp ngeen mën koo amee ci seen seen bu màgg bi di Touba Mbella TV jërë ngeen jëf.